auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yéen mbokk àdduna bi yéen mbokk jullit yi seen mbokk sëriñ Bass Bamba Xéwal tey nag moom lañ doon dalal waaye tey moom mooy dalal benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax sëriñ Babacar ñu war a waxtaane ci sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ki nga xam ne mooy yaakaari jaam ñi ki nga xam ne moo liggéeyal ñëpp ñi xam ak ñi xamul ñi yëg ak ñi yëgul ki nga xam ne moo tas àdduna fu nekk mu dugg fa ki nga xam ne bépp mu mettit bépp naq naqar boo xam ne waroon noo am sëñ Bamba ñëw na fegal ñu ko yaa xam yëg nga yaa xam ne yëgoo ki taxaw ñëw fekk fi xaajar bokk ca biir fekk ca tiijaan bokk ca biir ndax dafa xam ne dafa baax dafa xam ne tiijaan dafa baax dafa xam ne xaajar dafa baax moo tax mu ñëw bokk ca biir ba pare mu toog ba mu yàgg xool ne xaaral ne xaaral ma def muridullah mooy jàmm bu jëm ci yàlla kooku nag la ñu war a waxtaane tey muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi ci dalal ponkal moo xam ne boroom xam-xam moo xam ne borom daraja moo xam ne wóolu nañu xam-xamam yaakaar nañu xam-xamam muy Serigne Babacar kon bu leen fàttee abone ci seen YouTube bii nga xam ne mooy Xéewal TV foofu ngay gisee lu la yéem foofu ngay gisee lu la waar foofu nga gisee lu la yedd foofu nga gisee lu la faj foofu ngay gisee delloo ci yàlla suñu borom bu leen fàtte abonné te bu ngeen abonné ba pare bës leen kolos bi ndax kolos bi mooy tax vidéo bu ñu def ngeen mën koo gis Serigne Babacar ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay Serigne Bass Bamba di waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñii seetaan nuyoo bi képp ku mu fekk nga nekk ci xat-xat yàlla na ko yàlla dindi képp ku mu fekk nga nekk ci jaaxle yàlla na ko yàlla dindi kon nag déglu leen bu baax tey jii borom xam-xam lañu dalal pour waxtaanee ak moom kan mooy sëriñ Bamba kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul liggéey na liggéey bu rëy tasaare ko ci àdduna bi est-ce que jariñoo na liggéey boobu waa sëñ Babacar danga lay laaj laaj boo xam ne xam naa ne kenn mënu koo xam muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kan mooy sëriñ Bamba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul sëñ Babacar jërëjëf sëriñ Bass bala ma tontu nuyoo bi dama fas yéene nuyoo ni ma baaxoo nuyoo bismillah auzu billahi samihi alalim min asheytaani rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحول عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على غير الأنبياء سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة آه، الله lay ziar bu زيار di زيار di دلو ziar di ziar Serigne Touba mooy doomi Maam Mor Sali Mbacké feeñ ci Mbacké Bawol en 1852 waajuram wu di jigéen di soxna Jaaratullaahi Buso radiyallahu anha mu feeñ ci Mbacké Bawol bu teg ñépp te la mokkal alxuraan ci euh, baayam buñ naan euh, euh, sëñ euh, Tafsir Mbàkke Ndumbe mu jàngal ko alxuraan ba mu sori mu wàcc liggéey mu mottale alwaam ci nijaayi nijaayam di sëriñ Bousso bi muy sëñ Mouhamad Bousso mm-hmm. ba mu ko jàngale alxuraan ba mu sori moom it dafa noppalu mu eggalee alxuraanam àlluwam ci wàllu alxuraan ci daaray baayam di Mamor antasali fa la eggalee alxuraan mu nekk fa nekk ku bëgg xam-xam nee nañu sax euh, téere bi mu njëkk euh, wecceeku ci wàllu xam-xam mi ngi ko wecceekoo ci benn naaru gànnaar ci dërëmu ngurdu waaw téere boobu bi mu ko wecceekoo bi mu koy weccee ko sax yàlla def na amul lu mu ko faye boobu mi ngi ci Saalum mooy bi sëñ Maam Mor Anta demee Saalum te euh, Maba Jaxu Ba muy buur boobu di buuru Saalum woowoon fa nit yàlla yépp pour ñu ñëw jege ko ndax mu mën leen a protéger ci wàllu zaayir ci kàccoor yi ceddo yi ak colonisateur bi bi Maam Mor Anta Sali dafay jihaat gu rëy googu jóge Mbàkke Bawal ànd ak njabootam ñoom ñëpp ñëw ba Poroxaan à sept kilomètres de Nioro mu sanc fa ndax dafa baaxoowul ngay gis nitu daara di jaxasoog buuru àddina sëñ Tuubaa boo demee ca téere mu ngi naan am dañ ko laajee gannaaw bi Maam Mor Anta Sali liggéey demal ziyaare ji Lat Joor mhm. jaale ko sa waajur ndax xaritam la woon wëllëreem la woon mhm. te moo daan atte diine ca kër Lat Joor jàngale dafa atte miraas Sëriñ Tuubaa lam fa wax ñëpp xam nañ ko ci la leen tontoon ni leen xaaru irkan abwaaba salatini taxuj jawaïsa toxni kulla ma ini nee nañ ma nga dem fëgg buntu buur ya ñu jox la teraangay àdduna judul jeex waaye ku ne xam na Sëriñ Tuubaa lam leen tontu mu ni xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra ilmi wa diini yàlla doy na ma te doyloo naa ko mm-hmm. ndax man gërëm ma lu dul xam-xam ak diine mm-hmm. waaw sëñ Tuubaa nag mm-hmm. bi mu ñekkee mu ñooroo boobu mu bëgg a wecceeku téere euh, téere xam-xam boobu te yàlla def amul lum ko wecceekoo téere boobu sax la woyaat tudde ko mu layyinu sudur waaye laata mu koy woyaat boobu eggagul woon ci dara darajay mën a woyaat téere bi ndax jàngagul woon naxwu jàngagul woon aroot jàngagul woon bayaan jàngagul woon balaaxa yooyu yëpp ay jumtukaay yi xam-xam la yoo xam ne mooy tax nga mën a woy ci wàllu arab bu mu demee ba Saalum foofu ci Ñooro hmm. muy seet taalibe baayam boo xam ni ku mënoon a yaxantu la ci wàllu commerce hmm. amoon ci barke lool hmm. pour mu sàkku fa loo xam ne dina mën a fay téere bi mu ñëwee mi ngi yu tilim ànd ak naar bi moom Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ñëwee waajuram euh, baayam boobu di ko yedd ndax yére yi ni mu tilime mm-hmm. waaye sëñ tubaa tontoo ko ndax teggin yu rafet ja mm-hmm. mu daal di génn yére bu rafet bu set ni ko mm-hmm. summil bii te sol bii ndax yow sa waajur kilifa la waroo sol lu mel nii sëñ tubaa summi yére bi euh, sol yére bu bees bi ko taalibe baayam boobu jox jëflanteeg moom bi mu demee ba wéet mu jël téere boobu yére yooyu tilim yi lax ko ci ak garab goo xam ni ca yoon woowu jaar ngir delluwaat fa mu jóge mm-hmm. bi mu demee ba jeexal ak moom lañu waroon a jëflante mu àndaat ak naar bi bi mu ñëwee ba ci suufu garab gi mm-hmm. mu jëlaat yére bi summi yére bu bees bi sol yére bu tilim bi jël yére bu bees bi mm. daal di koy jox euh, naar bi ngir téere boobu mu ko doon euh, euh, jaay téere boobu la woyaat tudde ko mu lay layyinu sudur mooy lii leeral dënn yi téere bobu téere tasawuf la mm-hmm. waaw ci walu tasawuf lay wax ci mm-hmm. walu ihsan lay wax mm-hmm. waaw ndax yàlla yonent bi ni an tahbudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. boy jaamu sa borom da nga wara melni mel ni ku jàkkaarloog yàlla boo mënta gis yalla mu bir la ni suñu borom mi ngi la ndax yalla mo wax ci alquran ni wallahu yuhibul muhsinin Yalla neena sopuna ñi nga xamni dañuy rafetal Sëriñ Tuba mm. noonu la meloon mm. tee la bëgg xam-xam jeex tàkk tamit ci fànn xam-xam yépp mm-hmm. waaw daana def tamit mm-hmm. bu naar yi daan ñëw ci penc woowu mm-hmm. mu ñëw di leen toppatoo di leen teral di leen defal teraanga yu yaatu ba benn bés naar yi ni ko ndax moom ku mu dégg ni yow miir ci xeetu xe ci ci rasululaay nga bokk rek dalay sopp dalay bëgg ndax moom yonent bi rek la bëgg bëggul keneen ku dul rasululaay mahat mahabati yal muxtaaru سيدنا حب المعاني والاعلين والولدا دمي واولاد فداه له اقدم قديما مسكانا للسبدا دا فا بغ رسول الله بغول دارا بغول دوم بغول دارا لب جوتي نكو بغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن بحب نسيت ليلى وذهبا وفدة وحيلة bëggul ay waruwaay hmm. bëggul alal bëggul hmm. urus bëggul dara hmm. rasulillahi rek la bëgg moo tax mu daan teral naar yooyu nag ba benn bés naar yi ni ko ñun de dañoo bëggoon kontaan ci moom lool ndax yitte ji ak teraanga ji ni ko ñun dañoo bëggoon ànd ak yow ci suñu kilifa ga suñu sëriñ mu ñaanal la say aajo faju mu ñëw wax ko baay bi baay bi di ko déedéet toogal fii rek lépp dina la fi fekk mu dem sax ba jàpp ni baay bi da koo xaw da koo xawut a sopp demoon na ba mel noonu ba benn bis benn wàlliwu bu ñu naan Ibrahima Bagdadiyu wàlliwu bu mag la daal koy ganesi ganesi ba Mor Anta Sali bu ko ganesee bay dem ba tolloo néeg bi sëriñ bi de ma Mor Anta ko ni ko man dey dama bëggoon la waxtaan ak yow fekk mi ngi ànd ak mbooloo mu bari mm-hmm. mu ne mbooloo mu jiitu leen ma mm-hmm. mu ne ko dama am doom joo xam ne moo ma gënal ci lu ma jur mm-hmm. ndax sopp gu ma ko sopp ndax yàlla dafa def ci moom ay xemmemteef yoo xam ne gisuma ko ci kenn ma bëggoon nga ñaanalal ma ko mu mucc àddina ak alaxira ba kenn bañ koo yàqal fekk Serigne Touba ngi ci biir néeg bi di leen dégg moom jàppoon na sax jàppoon na sax ni Serigne Touba daa ne ci àll bi ndax moom ci àll bi laa nekk di wéet di wéetal yàlla Hmm. Walu bi hmm. hmm. da ko anamu muni man day mu ko dama japp ni min ci all bi fofu lay tok rek beru nit ñi ndax mom jaxaso mak nit ñi wu walu bi ñaan lu yag daal di ci wetu nit bi ni ko bu yalla day dina aaru adina ak alaxira te lim bëgg dina ko am adina ak alaxira daal di dem fofu la cheikhul khadim xamé ni baayam da ko sop sop go xamni moo tax mu koy aar ci lépp loo xam ne mën na koo yàqal am na benn bés tamit mm-hmm. ci saalum googu mm-hmm. waa juróom am fu ko yebal ni ko boo ñëwee fekk ma kër mm-hmm. sama benn xarit bu naan Bokar Faal bu mu demee ba wàññeeku mu ñëw kër Bokar Faal fekk fa sëriñ Pir ak Xaadima Jaxate Kala ak Ibrahima Bagdadiyu benn shérif la boo xam ni شريف بدي واخ والو عرب دي لاك اي وي عرب سيغ توبا نييو نيو دا دي ген ناخ اي تيغينم مايكو مي توك اك اي واجورم ناخ يالا موني ووصينا لسان بوالدين حسنا ديلن رفتل دي جيمي سي سين نياري واجور ان تحبط الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا يالا موني gannaaw bu ngeen ma jaamoo te bañ maa bokkaaleeg dara mm-hmm. na ngeen di rafetal jëme ci seen ñaari waajur moo tax sëriñ bi génn néeg bi bi mu génnee mm-hmm. fekk bis boobu xew-xew bu rëy moo amoon foofu ñu ndax gan yu kawe yooyu mm-hmm. ñu doon teral ñuy togg ndawal te sëñ Touba xeetu ndawal da koy déranger mu daan mu dem toog ci àll ba nes tuuti rek ndaw ñëw ne ko kaay wuyu xaadima jaxate kala xaadam bi mu ñëwee xaadima jaxate kala néegu euh, shérif bii di woy mm-hmm. dama bëgg nga bindal ma ko mm-hmm. sëñ Tuubaa nanguwu la laal bant bi ndax mm-hmm. néegub jàmbur bi mu ko daggee te tàgguwu ko xoolal dimension ragal yàlla ko ni ko man de dama loon ñaan ngànt ndax mën naa génn ci biti wut beneen bant boo xam ni ci lay mën a binde li nga ma wax ñu ne ko waaw mu daal di génn bi moo nee ginnaaw baay bi ne kii de baaraamam sax mën na ciy bind bantub jàmbur bii nga dagg ci néegub ñax bii te tàgg woo ko moo tax nangu koo laal bi mu ñëwee mu hmm. bindal leen xikma yi hmm. ak addis yi naar bi doon wax hmm. nes tuuti ñu noddu xaadima jaxate ka leen ni Mamor Anta Sali doxal ci kanam Mamor Anta Sali daani ko ana sëriñ mu ne ko mbakki mu ne ko doxal keroog moo leen jiite keroog la sëriñ sëriñ Pir mii fasanteeg kóllëre sëriñ Touba daal di waaru ci moom xam ni xale bi kat yàlla nëbb na ci moom mbir mu rëy a rëy rëy rëy rëy noonu la Moussa mel digganteem ak naar yi ndax boo demee ci Cheikh Sadbu Abi mi ngi naan xalifa zamanu la yatiyanaa bi mislihi xanichat mm. yaminuka ya zamanu fa kafiri nee jamono géñ na ni dina indiwaat ku mel ni sëriñ tubaa waaye yow jamono bi ba nga kafaara sa ngiñ li ku mel ni Serigne Touba dootul. dootul am dëgg la moo tax mu ni innama cheikhu nixmatun mm-hmm. waaw innama cheikhu nixmatun mm-hmm. haza qalaaxixa kullaha awlaaha mm-hmm. nee na Serigne Touba xewal la ko jóge ci yàlla ngir mbindeef yépp kéemaan laa jóge ci yàlla di delluwaat ci yàlla wallaay ndeysaan Cheikh Saad bu Abi mm. Cheikh Sidiya Baba ñëpp a ko way Cheikh mm. Sidiya Baba nee na ko wa ma xaybuhu mm. ila ibadati rabbihi wa nasxul wara fi subqihi wa masaihi nee na Sëriñ Tuba am na sikk ñu ne ko luy sikku Sëriñ Tuba mu ne yor njariñi nit ñi ci suba yi ak ci ngoon yi sikkam daal mooy jaamu yàlla yor njariñi nit ñi nag ci suba yi ak ci ngoon yi kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba maanaam euh, damay ragal ñu euh, bu ñu bëggee wax lépp ci Sëriñ ba ci wàllu kan mooy Serigne Touba. émission bi du ci xaj. jërëjëf yaa Oustaz Serigne Babacar ndax sëñ wax dëgg yàlla xoli tooy nañu wax nga te kéem si laay kàttan li nga xam Serigne Bamba <laughs> ndax Serigne Touba mi mm-hmm. def la boo xam ne kenn mënu koo xam mm-hmm. maanaam dañuy wax kéem si laay kàttan rek mm-hmm. ndax sa biir wax dégg naa ci nga xamal ne Cheikh Bamba Serigne Bamba nee na aw ma jabar aw ma doom aw ma aw ma aw ma ndey aw ma bàyyi aw ma kenn maanaam sama lépp jël naa ko jox ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xamal nga nit ñi suñ bamba ku gëm yàlla la woon koo xam ne mhm. daawul jël ñàkku jàmbur ci liggéey mhm. ba per boobu ñu daggoon noonu pour jox ko mhm. sëñ Bamba mën naa bind sax ci loxoom waaye banti jàmbur nga jël ko li ci bind kooku la nga ciy bind du du yiw ba tax na loolu nit ñi mën nañ cee jànge mhm. jël alalu jàmbur di ko utiliser ci yoonu yàlla mhm. sëñ Bamba moo ko njëkk bañ wax nga fi it maanaam cër gi mu jox baayam mhm. ak cër bi mu jox ki nga xam ne moo ko joxoon yére bu bees war ma ak teggin tax na mu sol boobu waaye bu mu génnee dafa jël yére boobu jox ko benn doomu adam ngir lan mën a am ci moom xam-xam kenn du sëriñ Bamba waaw xam nga tënk nañu sëriñ Bamba ndax kenn mënu koo xam jaruñu ci yàgg naan kan mooy sëriñ Tuuba kenn mënu koo xam waaye moom xam na boppam yàlla xam na kan mooy sëriñ bamba waa dem na léegi ñun taalibe sëriñ bamba yi ñun taalibe sëriñ bamba yi ak suñ sëriñ ni mu mel ñun nan la lu war a mel ba am ngërëm a sëriñ bamba ñun taalibe sëriñ bamba yi waaw Cheikh Ahmadou Bamba ku bëgg a bokk ci moom da ngay ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa parce que moom moo ni nazafatuhu kulli ani lawi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayyanu su coo nee na yàlla daf maa laabal ci lépp lu ay caaxaan mm-hmm. te dinaa feeñal nag yëkkati sunnaf yonent bi ba ñi ah, ba ñëpp ci seen bët mm-hmm. te sëñ Tuubaa moo ne inna waliyal illahu sama kilifa du ko yàlla rek la mm-hmm. moom rek mooy sama kilifa ax bu ko jaamu wa xayruhu lan axbuda te du ma jaamu tamit leneen lu dul yàlla waaw kon képp kuy taalibe Serigne Touba mm-hmm. noonu nga war a mel mm-hmm. ba pare Serigne Touba dafa joxe ay caractéristiques euh, Serigne Bass mm-hmm. ci euh, téeréem boobu ñu naan alxikmatu wax ci ñeenti point ni ku ñeenti point yi ku ko jëfee yow sa saddeex nga ci moom nga bokk bu njëkk bi ban la bu njëkk bi mooy asidxu fi mahabati cheikh abad mooy lan mooy nga dëggal sopp gi nga sopp sa sëriñ dëgg la ñaare bi mooy ah suma imtishali amrihi xëy su wara mooy lan mooy ngay déglu sa ndigalu sëriñ di ko jëfe li mu tere nga bàyyi ko oustaz tegal foofu sa baaraam est-ce que maanaam sa ndigalu sëriñ moom mooy lan ban ndigal la la sa sëriñ ndigal mooy lu neex yàlla rek neex yonent bi neex Cheikh Ahmadou Bamba waaw waaw waaw oustaz woykat bi ma gis. Mhm. mu téye micro am di woy caaxaan yi. Mhm. jaxase góor ak ay jigéen. Mhm. te ne dafa wékku ci sëriñ diw. kooku lan nga koy wax. waaw kooku kooku si seytaane la wékku. waaye wékkuwul ci sëriñ Touba. waaw sëriñ boobu mu wekku loolu tey. waaw moo xam sët la moo xam doom la moo xam lan la. moo xam sëriñ boobu mu wekku est-ce que jotul. mu ne kii. Mhm. yow li ngay wax nii. Mhm. maanaam maanaam micro bii nga yore. Mhm. tey micro képp ko yore. Seydina Muhammad nga ci war a way. wala yàlla sunu borom. ndax ñoom rek ñoo jar a way. waaye kii yore micro bi naan xaalo gay naa ko njaago. sama ma def lii nangam nangam. góor ñi jigéen ñi jaxasoo. ba pare mu ne Serigne diw laa wékku. Serigne boobu lan la war a def. waa li ci li mu war a def mooy. Euh, woolu taalibeem bi. Mm. teg ko ci yoonu yàlla. ko ci yoonu siratal mustaqim mm-hmm. teg ko ci sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. teg ko tamit ci njàngaleem Serigne Touba mm-hmm. bu ko deful moom euh, bu ëllëgee dana layoog taalibi boobu waaw ndax tamit euh, Serigne du juyoog alquran du juyoog sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mais parce que Serigne boo gis mu juyoog li yàlla santaane juyoog li njàngaleem rasulillahi sallallahu alayhi rek ah kooku yow ba dañ lay wax sëriñ rek waaye doo sëriñ ndax sëñ Tuubaa moo ne kanzi kitaabullahi wal hadis wal adab wala jamu fiddatin wala jamu zahabin loolu mooy lan sëñ Tuubaa nee na sama trésor man Cheikh Ahmadou Bamba ah mooy téere yàlla bi ah ak waxi rasulillahi salaa sallam ak yara ki teggin nee na sëñ Tuubaa nee na man du ma du ko du man du ma kuy dajale alal du ma kuy dajale urus mu ne bi xidmatil kitaabi والحديث يثبت laa bi zahabin mawruus sëñ Tuubaa nee na ku ma bëgg a liggéeyal liggéeyal ma ci alquran ak ci waxi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaw jërëjëf waaw waaw man damaa gis ay sëñ Bamba boo ko toppee da ngay gis ni mu bëgg woon Seydina Muhammad ndax lu ne wax na ko wa nabi wa rasul wa xalilu wa nabi wa imam wa dalil lu ne wax na ko mais dama ne ñun سين بام باتام بيب با باج نكو با دنا جيروم بن ويري صلاه سته بمات اسيتي با ايبتا ما تشا جيروم بن ويري داكاي وي رسول الله يلان جيروم بن ويري داكاي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دا جولي سي يونتبي فرات لا بن يون سي جوليت بو مانت دون دونت بن يون لا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كون خمغ سين بام ابو لول جوب با بروب ني ام جوب تاي با بالي سين بام لا نياكار والله xam nga li ma la ko waxee rek wa xaysu ixtiraadi mutlawan walaw bi baatinihi fii ma xad rawaw mooy troisième point bi jotuñu jotuñu koo laal may moonaam mooy nga wolu sa seri zahir ak ci baati do ko jëw ci sa lamign do ko jëw ci sa xol nga nga nga wolu ko ak certitude waaw ban ma ci top wa maxahu salabul ixtiyaar li husni zannihi bila inkaar nga mm-hmm. ànd ak sa sëriñ nag mm-hmm. ci mbooleem loo xam ni moom la la tànnal mm-hmm. lépp lu mu la tànnal nga xam ne lii moo gën ci yow loolu mooy mandargay murid sadeex waaye sëriñ nag bala ngay aju ci moom da ngay sëri da ngay aju ci sëriñ bu mat sëriñ dëgg la ah, man tawasala bi waasilin wasal dëgg la waaw waaw ndax damay faral di dee kat yi naan sëriñ bu mat sëriñ fii mënal léegi oustaz yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. da daan génn mhm. wax benn biir mhm. ñu ne ko lii yàllaa ko wax am yow sa xalaat la bu dee yàllaa ko wax wax yàlla sans commentaire la mais bu dee waxi doomu aadama maanaam mën nañ ko commentaire saxaaba yi dañoo amoon audience taxaw naan yonent bi ndax lii yow yaa ko wax sa xalaat la am xalaatu yàlla la ndax yow nit nga mën ngaa juum mais yàlla du juum est-ce que loolu tey ñeme nañ ko def suñu sëriñ si fii loolu moom bariwul ñu koy ndax Seydina Omar euh, radiallahu anhu moom moom daan questionné yonent bi mm-hmm. waaw lu mu wax rek da koy laaj ndax ci yàlla la jógee wala sa xalaatu bopp la mm-hmm. ndax xam nga sëriñ Bass mm-hmm. l'islam du xalaat l'islam ay règle la parce que alquran c'est des lois doctrine la waaw yàlla bind na wàcc na ci kaw suuf cent vingt quatre mille prophètes trois cent treize yi di jayshun ñoom la jox téere def leen ay messager yi ñoo nekk ci al alxuraan mm-hmm. waaye kenn mus cee ñëw indaale sa xel di mm-hmm. waxee sa xel mm-hmm. donte boroom xel yu rafet lañu woon waaye ci al alxuraan ci téere yi ñu lay indi woon ñu wàcce ko ci ñoom ci lañ doon wax ci lañ ci lañ doon liggéeyee la yàlla ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah ci la ligg alxuraan ji mu yor ci la daan atte woo ci la doon jàngalee waaw kon képp ko xam ni Mhm. da ngaa jiite mbooloo rek mhm. da nga leen di wax njàngalem yàlla mhm. ak yonent bi sa ak nja ak njàngalem ijmaax sëñ Tuubaa wala képp koo xam ni euh, ku baax la daana roy euh, mi ngi daan teg tànkam ci alquran ak ci sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jërëjëf sëñ Saas déglu sa waxtaan bi rafet na trop mais ñu dañoo gis ci jamono bi ñu toll nii sëriñ yi dañuy wane seen bopp maanaam da gis koo xam ne maanaam sët la ci benn kilifa gu mag mhm. Sénégal yàlla dafa dafa dafa bëri ay kilifa mhm. maanaam sët la ci kilifa mais sët boobu mu sët noonu maanaam Mbàkke la sant wala Sy la sant mhm. wala Laay wala Ñas wala nangam wala nangam maanaam day jël arme sant boobu wala arme maqaama kilifa googu maanaam mbu mbubboo ko maanaam di wone boppam bañ a wone yàlla sunu borom te ku wone ku wone sa bopp yàlla nëbb la ku nëbb sa bopp yàlla wone la waaye dañoo toll jamono boo xam ne tey jii amul benn sëriñ bu nekk ci kaw Sénégal boo xam ne nit ñeme naa taxaw wax ko dëgg te ñoom ay nit lañu dañuy juum dañuy feebar dañuy am problème dañuy siburu dañuy nelaw dañuy dee kon nit lañu kon pour lan te nit dafay juum amul ku dul juum waaw léegi pour lan nit ñi ñemoonu bu sëriñ juumee tey bu sëriñ juumoon tey nga taxaw ci tele bi wala rajo bi ni sëriñ juum na mën na la sax rey léegi loolu fan lañ ko teg xam nga sëñ Bas. Mm-hmm. xoolal sëñ Tuubaa fi ngay xamee nii amu ni nga wax li koy gën a dëgëral. Mm-hmm. fi mi ngi naan minhu rajawtu maxwaay bi kullihi mm-hmm. wa an akunu naajiyan bi fadlihi mooy lan na yow ci yow suñu borom. rajawtu ci laay yaakaar. maxwa nga faral ma. nga effacer ma. ah ayib bi kullihi sama bépp ayib. te ku ne xam ne ni sëñ Tuubaa amul ayib dëgg la dëgg la. waaye sëriñ la. sëriñ day mm-hmm. modeste. Mm-hmm. sëriñ day humil am humilité. Mm-hmm. donte egg na ca pays yàlla ba sax. day jàpp ne eggul la waaye bépp sëriñ boo xam ne mi ngi lay woo ci jëmmi boppam. di la euh, di la won boppam. kooku matul li mu doon. kooku nag taalibe bi moo war a am fulla am fayda. xool ki nga xam ne mën na koo jariñ tey ak ëllëg. mu dem jox ko boppam. waaw te dafa am ñoo xam ne aussi sëñ Bas. Euh, ci jamono ji ñu nekk euh, ànd ak sëriñ ngir yàlla. bu ñuy dem ci sëriñ ndax siw na moo. bari na mbooloo moo tax mhm. ndax moo xew ci jamono ji moo tax mhm. looloo tax ñuy dem di jébbalu ji am mhm. ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla bu tension yi moo wuute ci taalibe bi dem ci sëriñ waaye sëriñ boo xam ne nag wax dëgg yàlla du woo nit wan nit ñi yàlla wanu leen tamit li yonent bi doon jàngale ak ak ak kooku jarul topp kooku war nga am fulla xam ni kii mbindeef rek la doomu aadama la ah, da nga am yaakaar ci moom ngir mu yóbbu la ci yàlla mhm. bu nekkul bu loolu nekkul ci moom war ngaa koo bàyyi dem seeti keneen ku la mën a yeggale ci yàlla mhm. mu yeggale la ci yàlla te sëñ Tuubaa mi ngi nii wa jaxtu wajhiya lahu mu fawida amri ilayhi rajiyan min horida mhm. sëñ Tuubaa kii sëriñ nii lay mel wa jaxtu wajhiya jubale jubale naa sama lépp ah ñeel la yoo sama borom mu fawidan may boyal sama lépp sama mbir yépp tamit boyal naa ko jëmale ko ci yow yow sama borom waaw it raajiyan may yaakaar minhu ci yow hmm. riddaa ngërëm ëllëg ndax yoonu am yàlla hmm. moo yombut ndax sëñ a nee na nabaxtukum maan hmm. ala kadibada li xabla an raa riddaa mu abada mu ni kaay ma yee leen ñëwal ma yee leen yi na xam ni damaa daj lu tar mm-hmm. damaa jaar fu mitti mm-hmm. daj lu lu ne ci at loo xalaat lu mën a xalaat ak loo mënta xalaat